asiru mal abraari hiina asiru sant leen gërëm leen mbokk yi safa di bàyyi xel leeral TV amati nañu mbégte di leen dalalaat ci seen ñetteelu numéro xibaar yi ñeel wàllu màggal Touba atub 2023 xam ngeen ne nag ren ji moom mooy 129e édition tey nag leeral TV dafa yéene ko ànd ak yéen ci nu mu gën a mucc ayib mën ngeen nekk fu leen neex man ko suivre ci suñu plateforme digital wante itam ci fépp foo xamante ne bi rek suñu réseau synchronisé la xibaar yi nag dañu koy tàmbalee ak société bi nga xamante ni bi rek moo di Ecotra yebal ab délégation bu bàyyeekoo ci administration bi ñëw fii ci bërëb bu sell bi di Touba Mbacké dajee ak ñi nga xamante ni bi rek ñoo di comité d'organisation bi wante itam euh, kilifa diine yi bu ko defee ñu jëbbal leen ay jumtukaay yoo xamante ni bi day gën a taaral bés bi nga xamante ni bi rek ñu ngi cee jëm muy euh, màggal Touba ñu war ko amal fii fan muy le 18 safar yemook ñeenti fan euh, ci weeru septembre atub 2023 bi ñu nekk moom nag mi nga xamante ne bi moo di Fallou Samb moom mooy directeur technique bu ECOTRA yëkkate na ci ay kàddu dénk ko suñu ndaw jëppëril ko li ñu teewlu ko président Abdoulaye Sylla yónnee na lu ma téeméeri nit cent personnes yu jógee suñu bureau yi ñëw fii Touba président Abdoulaye Sylla yónnee na diggante ay engin ay camion ak lu ko xeetoo lu mat juróom benn fukk ak juróom équipement le président Abdoulaye Sylla yónnee na fi ñeenti pompe hydraulique yoo xamante ne bu ci nekk am na débit cent cinquante mètres heure yeneen nañu fi benn hydrocureur boo xamante ne bi dafa autonome tout terrain bu am mband boo xamante ni bi dana jël trente mille litres président Ablaye Sylla nee na loolu doyu mu jënd équipement yoo xamante ni dañ koy utiliser ci nettoyage lu mat juróomi téeméeri brouette ak junni peel ak junni pioche teg ko ci loxo sëñ bi nee na moom bu sañoon lépp lu Tuubaa yittewoo kàttanam may ko lépp moo koy def nañu nag yéen ñi nga xamante ni yéen laa yebal bu ngeen demee bu leen bëccëgal bu leen guddeel nekk leen ci waaw sëriñ bi lu mu leen sant waxtu mu leen ko sant li ngeen ci mën na ngeen ko def li ngeen ci mën na ngeen ko jéem ba ñu ñëwee ba léegi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ŋànk entreprise bi ñëpp ñu ngi fi DG Assane Sylla mu ngi nii suñu directeur yëpp ñu ngi fi directeur des ressources humaines directeur financier directeur des études ñëpp ñu ngi fi mu ngoo ko di Alpha Samb moom mooy directeur technique bu Ecotra dañuy wax ba tey ci waajtaayu màggal bi ku ne xam ne ni euh, ñu ngi ci bu baax a baax suñu mbokk tayere itam ñoom ñu ngi ci lépp lu ñu mën ngir bu ko defee euh, fii lekk màggal ga ñu mën a jeexal commande yi nga xamante ne jëloon nañu ko ndaxte sax ñoom nee nañu am nañu yéex a jot wante njort nañu ne bu ñu moytul rek coupure courant yi ñu faral dina mekk yu ndaw ndawaan ni euh, dina indi gàllankoor ci liggéey suñu ndaw Ibrahima Khalil Jéeme doxante woon na fa ñu teelu ko ci gannaaw bañ leen fekkee kenn ku nekk yaa ngi sëgg ci sa machine tailleur yii le ñu bëggoon rek gaawantu ngir rek mën a livrer ay commande yi nga xamante ne am nañ ko ci wàllu ñaw loole nag kenn ku nekk fekk nañu leen ci atelier am laaj ko xalaatam waaye lii lañu tontu. ah ñaw yi nag moom ñëw na waaye dafa yeex a ñëw instant bi waaw yéex naa ñëw lool te ñaw simple daanaka moo ci ëpp màggal commande yi moom mënta pare moom wax dëgg waaye dina tane daal. gannaaw ay fan rek des ngir ñu amal lii di màggal de Touba ñu bëri ci tailleur yi boo moyul ñu am jafe-jafe ngir rek mën a livrer seeni commande loolee li ko waral bokk na ci courant bi nga xamante ne moom la ñu wax ni dafay coupé saa su ne. waaw ak ak coupure courant yi yooyu daal sonal na tailleur yi instant bi waaw waaye daal coupure yi daal bëri na ci yàq ndax màggal dafa xat hmm. buñ sañoon daal balaa balaa bala ñu dugg weeru safar bi day fekk. coupure yi jeex ba pare xëy na ñi ko yor seen yéene demewul noonu waaye nag bu ñu dolli woon a jàppale mu gën ndax eh, yor liggéeyi jàmbur ba seen boroom taxaw di la taxaw nga jékki-jékki courant bi nag karaj loolu xaw naa doy war lool naka noonee ci jamono bi ñuy amal magal bii le tailleur yi sax dañuy dimbale seeni clients yi ndax ñu xool anam bi nga xamante ne moom la ñuy sol ci xew-xew biile ndax ñu mën a sàmmonte digle ak tere yi sëriñ bi col goo xamante bi bu ko nit solee romb la bopp sa xol di ñur ñuri tàng wit xam nga ne sëñ bi bëgg ko yow téere bi boo ko ñawee xam nga ne liis ni nga ñaw sëñ bi bëgg ko léegi nag bu ñu la ko ñawloo yow na nga xool noo xamante ni moo gën a baax ci li nga sëñ bi bëgg nga defee ko noonu wala nga wax ak borom ci lii la kat dëgg dëgg moo gën ci li sëñ bi bëgg ci atum ren jiile ci atelier yu bëri daanaka góor ñi sax ñoo ëppale li ñuy commandé ci ay yëre buñ sukkandikoo ci yëre yi nga xamante ne taataan nañu seeni kàddu waaye ba si tembe client yi ñu ngi xaarandi ngir ñu jot seen yére yu bees yooye ngir ñu màggale ko mu ngook Ibrahima Khalil Diémé kon mbokk yi depuis démb nag yéen a koy bàyyi xel ñuy wax ne inondation yoo xamante ne bi dafay faral di dal ay quartiers yu bëri wante itam ay yoon yoo xamante ne neexul a jàll loolu nag euh, xel mën naa daal ndaxte euh, ñi nga xamante ne bi rek ñoo di askan wi rawatina ñu dëkk fii ci Touba ñoom jàpp nañu ne loole mënta gàllankoor màggal gi lee ndaxte nekk na màggal boo xamante ne amul tànk ginnaaw tànku kanam kese la am te bi leen bu bi moo fas yéene dàq bi weesu ñu teelu si ñenn ci askanu Touba fii ci diwaan bi lee gi yaakaar naa ne mooy dàq màggal gu mës a ñëw man man yaakaar naa ne moo dàq màgg a ñëw ndax préparation bi na euh, ko ndax ñawi Baye Fall yi bi ba mu jeex ba jébale ko dina benn téeméeri complet muy Baye Fall yi liggéey ñëw nañ ko ba mu egg kon nag ginnaaw def nañ la sëñ bi waxoon leen sant santoon rek gi moom li laaj moom moom gën a neex loolu moom am nañ ci yaakaar ndax sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am daanaka ñun ba benn benn fanu safar lañ commencé woon a màggal ba tey dëkk baa ngi fees dell lépp nag sëñ Touba ko waral. waa dina ci yàq dara waaye nag lu ñu mën ñu ngi koy def ndax wax dëgg yàlla waa Touba ca kanam ñu ngi ŋàcc marché bi démb daa feesoon dell waaye fi ne daanaka tey fekkoo fi ndox ndax heure bu ñu xëyee rek ñoo ngi xool nu mu setee nu mu baaxee pour gane sëñ Touba yi ñëw. màggal gi moom ren lay ren lay bii nii nii màggal nii mooy dàq màggal gu a màggal ci waajtaay li ba tey ci màggal gile ak comité d'organisation bi ñoom nag lépp loo xamante ni bi rek daanaka euh, service yi faree ci nguur gi taxawoon nañ leen dinañu ko def yi lekk màggal gile ñoom nag nee nañu jamono ji téeméer boo jël juróom ñeen fukk yow muy 90 pour cent daanaka lépp matal nañu ko wante itam xel mën naa daal ndaxte lépp lu ñuy njort ci xeetu inondation ci yenn quartier yi daañ ci jël ay matukaay bu ko defee rek askan wi mën a amal màggal goo mucc ayib ñu ci ki nga xamante ne moom moo di euh, Pape Sène moom mooy euh, président bu commission communication ak culture ci màggal bi jëmale ci fii ci diwaanu Touba. rek ñu ngi woon ci liggéey boobu ak euh, ministre de l'intérieur ak ay services am ñu tuddee ko euh, daje boo xam ne évaluation la woon euh, ci directive yi nga xam ni moom joxoon na ko ses services muy revue donc des directives fan la ñu toll ci liggéey bi ba à quatre pour cent mën nañu wax ni macha allah liggéey bi mu ngi jaar yoon lépp jaar na yoon. ba daal benn jafe-jafe amul ci dëkk bi fii ci Touba euh, ñuy dalal xelu ñi nga xam ni ñoo jàpp ñu màggal si euh, ndaxte dinañ dégg naan Touba ndox mi euh, bari na yu demee noonu waaye loolu ñi ci war a taxaw ba lijjanti ko defe naa ni ñu ngi ci booboog léegi ba daal benn jafe-jafe amu ci. comité d'organisation bi nga xam ni sëñ Bassirou Mbacké mu sëñ Abdou moom moo ko jiite ak ñi mu àndal yëpp ci liggéey bi. saytu nañu ko ak ci teewaayu le ministre de l'intérieur et ses ba li ñu doon xaar ci ñoom daanaka lépp mat na wala bu matul it li des fii ak juróomi fan yi dinañ ko fexe mottali ba daal nit ñi dinañ mën a màggal màggal gu mucc ayib. mu ngoog nataalu bés bi tey dañu ko fas yéene jagleel koo xamante ne bii daanaka bayoon na waram ci wàllu diine islam rawatina ci tarixa Mouride bile nekk fi juróomeelu xalif général des Mourides ñu koy wax Serigne Saliou Mbacké yàlla yàlla yokki leeram. kan mooy Serigne Saliou Mbacké Ibrahima Khalil Diémé tey ma way borom jamono. ñoo bëgg Serigne Saliou. borom nekk juróomeelu xalif bu tarixa murid nekk nitu diine mi nga xamante ne xarañ na trop waaye it gën a fës di jëmmal ay frontières ci wàllum religion bi waaye it ci wàllum social ku tedd kii de mi ngi gane si àdduna ci Jurbel ci atum 1915 mu am taxawaay bu am solo ci wàllum développement ci diine gi fii ci Touba waaye it ci wàllum njàng mi ak njàngale mi mu nekk nit ki. li xamante ne doon na woon dox ngir mën a jëmmal jàmm diggante jullit yi moom mi ngi jóge ci famille Cheikh Ahmadou Bamba moom Serigne Saliou nekk personnalité bi nga xamante ne am na solo lool fii ci Touba waaye nag mu am it xam-xam mu am engagement bi nga xamante ne jëmale na ko ci wàllum éducation spirituelle waaye it yar ndongo yi ci anam bu mucc ayib loole nag gannaaw ba muy créer ay daara ak ay école coranique fii nga xamante ay junni ak ay junni ndongo doon nañ woon yëngu ci wàllu wi kuréel bi di xelkom nekk pàcc bi nga xamante ne it am na solo te moo ne de moom Serigne Saliou moom moo ko créé mu nekk ab symbole bi nga xamante ne askanu muridi yëpp daal di ko naw naka noone bu ñuy wax ci Serigne Saliou faaw it ñu wax respect bi nga xamante ne amal na ko ci wàllu kàddu diine waaye it mbëggeel bi nga xamante ne dugal na ko ci doomi aadama yi te it mu ñaax ñépp kenn ku nekk mu daal di respecté sa morom loolee nekk ay charte yi nga xamante ne ku tedd ki teg na ko fi ci giiru dundam Serigne Saliou mu ngi ñaax taalibe yi kenn ku nekk ngir mën a ragal yàlla waaye it di génne asaka di ko jox néew ji doole yi ci loolee moom nekk acteur économique bi nga xamante ne xam nañu ko lool moom Serigne Saliou wone na bu baax a baax autosuffisance alimentaire mi nga xamante ne sos na ko fi ci réewum Sénégal mu nekk ki njëkk ci baykat yi nekk fii ci Sénégal mi nga xamante ne moom moo daal di bay ci ay hectares yu muy séddale jullit yi gannaaw relation bi mu am ak ay mbokkam fii ci Touba Mbacké Serigne Saliou am na it relation bi nga xamante ne am na ko ci kër diine yi nekk fii ci Sénégal la ak it église catholique bi ci weeru décembre jaam ak ay pexeem yàlla ak ay dogalam Serigne Saliou gannaaw ay mébét yooyu yépp yu mu am ngir rekk mën a jëmale askanu murid ci kanam waaye it Sénégal yàlla daldi ko moom mu faatu ci atum 2000 2007 ndono yi nga xamante ne bàyyi na ko fi ci ndaw ñi moo wone ni moom Serigne Saliou nekk na nitu diine bi nga xamante ne sàmm na lool njaboot ji waaye teg na leen ci yoon wu jub mu ngook jaajëf Ibrahima Khalil Diémé kon mu ngook nataal bi am na solo kon nag askan wi mën ngeen a am lu ngeen jàng ci ki nga xamante ne bi rek moo fi nekkoon nitu diine nekkoon fi itam juróomeelu xalif des mourides Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokki ay leeram mbokk yi fii lañu ñu yemale xibaar yi ñeel màggal gi atum 2023 ñetteelu numéro bi jaajëfal équipe bi ma àndaloon Ibrahima Khalil Diémé Jibril Khoule euh, ñu nekk fii ci diwaanu Touba ngir lépp loo xamante ne bi ñeel na màggal bi li ay édition 2023 euh, bi la ngeen mën ko am ci nu mu gën a mucc ayib ci Leeral FM ak Leeral TV ba ëllëg ci waxtu wi jaa ngeen jëf asiru ma la